liberté am liberté d'expression parce que ce wax ci fond bi daf may dag quoi wax ci fond peut-être dañuy un ak sur beaucoup de choses mm-hmm. mais le timing aussi pose problème pour moi mm-hmm. parce que bon, ñu arrêté commencé arrestation arbitraire c'est pas aujourd'hui d'accord non quoi qu'on puisse dire c'est bien qu'il ait fait une conférence de presse, mm. qu'il ait fait une euh, conférence de presse pour dénoncer ces arrestations arbitraires, ces convocations arbitraires. Mm-hmm. Mais convocation arbitraire, nous commençons à dire Bon, nous avons trois mois. Mm -hmm. Imam Daou, nous avons trois mois. Amma Suzanne Kamara, commissaire Kaita, on ne les a pas entendus. La on ne l'a pas entendu. Mm -hmm. Digui Diop, Modem on ne l'a pas entendu. On ne les a pas entendus. Non. On les a entendus quand il s'est agi. Des gens qui étaient avec Yehui. Hmm. Avec eux dans le combat. Hmm. C'est-à-dire, l'hiver, moi, quand ba ñu fait ñi pouvoir, ci pouvoir le pouvoir. arrestation convocation arbitraire yi féetee ci ñi nga xam ne dañu nekkoon ak ñoom ca opposition bee ca la ñu jóg pour sa donner une crédibilité ça c'est pas de principe pour ñoom en tant quantité c'est pas un combat de principe comme dans leur déclaration nag oui il faut que am na loo xamante ne dañ ko doon xeex démb bañ koy ñoom bañ avant ñu koy wax ñun wax nañ ko ci plateau yi ba tàyyi Mais en communication, on dit qui parle Quel est l'émetteur Qui est l'émetteur Et pourquoi il parle Et quand Le timing et tout ça, c'est une cobarde. Mais nous démarche. Oui, la communication interne, forme, d'accord sur les principes. Mais nous avons commencé à nous faut arrêter à nous nous commencé à depuis l'arrestation de bah dit il faut nous sonner l'alerte. sonner l'alarme pour qu'on arrête ça bañ koy def te pourtant bañ ko doon def kenn qu'est-ce qu'on a dit où est la société civile donte d'accord ñu woon ci waxu Amath Suzanne Camara on avait dit où est la société ci société civile ñaar lañ ci dégg mm-hmm. Seydi Gassama ak Alioune Tine qui ont été cohérents ak Babacar Ba

de, de, de, de Bougan, de Kader, sont de l'arbitraire pur et dur. Pur et dur. Parce mm. que délit d'opinion dafa war a au Sénégal. mooy wax sa xalaat. mi ngi une guerre le 2 avril. mais la sortie est ciblée pour moi. Mm-hmm. ciblée. Mm-hmm peut-être dañ doon dajalé peut-être dañ doon dajalé arrestation bu bari pour bañ ñu ne len non vous parlez trop hmm. mais nous on ne dira jamais qu'on parle trop parce que nous on est toujours cohérent hmm. ba arrestation est tablé ba tay ñu ci wax mais il faut qu'on sonne l'alarme pour dire arrêtons ça suñu déggoon ca commencement ba su ñëpp mobilisé c'est la première arrestation Il y arrestation yi doon kon dépasser nañ ce qu'on appelle délit d'opinion suñ ko jógoon bu yag du ñu jël Amath Suzanne Camara yóbbu instruction jël commissaire Kayta instruction. non c'est vrai. te ay délit lañ def ay délit lañ def. Hmm. ñu a leen instruction. d'accord d'accord yow pourquoi parce que yami que nous. Hmm. d'accord ak yow. Hmm. Ah, moi je ne suis pas là pour que tu sois d'accord moi je donne mon point de vue. et j'accepterai le tien. c'est le charme c'est ça la démocratie aussi. mënuñu amuñu ànd nga yaakaar dañu war a toog fii di ànd parce que ñun ñu ay diwo lañ rek. waaw mhm. te yàgg nañ gérer ndoor suñuy diir. mais bii moom d'accord moom. ça c'est la vérité. xamante ngeen. xamante nañ mais bi mhm. yoon d'accord ma. Mhm. et je vais te démontrer tax d'accord ma. xam nga su fekkee da nga jël le point de départ. les conférences de presse, il y en a marre. Pourquoi mhm. Bien avant, ils n'ont pas réagi. Wow. Que... Maintenant, je demande une motion. Tu n'es pas là pour me répondre. Tu es là pour me donner, pour donner ton point de vue. C'est comme si tu es en train de me répondre. Non, non, C'est sur la base de mon argumentaire que tu es en train Non, non, xaaral mon ñëw. yow boobu suñu xuloo da lay arrangé. parce que graser les bras Je xuloo ñu. waaw waaw waaw xaaral ma ñëw rek. parce que damay développé di ñëw xam nga SFIO laay jóge jaar pra Sénégal yegg si dégg nga rek lay def voilà donc SFIO la section française la section française de l'internationale ouvrière section sénégalaise SFIO waaw bu boy di xeex tey SFIO moo tax mhm. moo tax xam nga dama ne suba damay wax si SFIO mais kii xamul fan laa bugg dem mooy gis nga la liberté des sénégalais. oui si seen ADN la nekk. xam nga xam nga damay junju parce que man sama les comi samay chronique nekk ma fii di yuuxu ak di non sama chronique dama koy segmenté. non non. <laughs> am na fi chronique ba saaga. Ah! ba pare daal dañ ma jëm si. Não, wala ko teg ci biir. não saaga alors que chronique. ah chronique. chronique day chronique day tay. chronique day sedd. chronique day am fil conducteur. du bind. dañuy wax du ay affaire yooyu. donc. ñu la wax ni. yow donc ma ne. <laughs> ma ne. ne suba ku bëgg dégg xam-xam. incha allah. xam-xam. waaw déglu rek ku bëgg a dégg xam-xam. 13h na wu. xam nga wax naa. les publicités yi de pour am wax naa samedi. wax naa wax naa samedi. ba yaram yi di daw. ta loolu du man maa ko wax boy risi yi ñoo ko wax. dégg nga li suba laay wax ba nit ñi naaw. wallaahi parce que foo may jóge mooy sori. parce que Serigne Touba dégg nga pour expliquer aux Sénégalais lu tax ñun liberté nek suñu ADN. ma yok si ni la femme sénégalaise mo njëkk voter la femme française. deug la mhm. deug la le droit de vote. suñu suñu yaay suñu maam yi ñoo njëkk voté mhm. que les femmes françaises. elles n'avaient pas ñom en son temps. ñun rawee nañ leen plus de cinquante ans de vote la fems française oh, dégg di baax mm-hmm. léegi ma dellusi si ne euh, ndox soo koy root kañ lay tuuru mm-hmm. du mu feesee mm-hmm. voilà boo posé bu ñu bu ñu te bu ñu jëlee baa jaxate hmm, en même temps que imam ndaw nga jóg ñu la mais yow nit lu muy bambara la ah, succession de faits parce que da ngay c'est des cas isolés mais bi ñu def un deux trois da sénégalais yi rek mm-hmm. mais bu sénégalais yi y a eu beaucoup de sénégalais yoo xam mm-hmm. en hibernation parce que tamit dañoo xam sénégalais yi parce que avant ay sénégalais yoo xam ne dañoo jàpp ni gis nga nit buy doxal il faut nga jox ko état de grâce même su fekkee nii Oscar Sierra def boobu moom nee na ay loolu amul dégg nga état de grâce dafa am nit ñi dañ lay bàyyi nga dawal joxe ay indication si fan nga bëgg jëmale réew